2STV yi Modou Modou yi TV te yaa ni yéen a ngi ànd ak seen mbokk seen xarit Mamor Fall Casillas Brésil tey nag ñi ngi ñëw ci jumaa ji nga xamante ni dafa symboliser lu baree bari muy jumaa njaareem te jumaa ji moo njëkk taxaw ci yoonu murit ndax sëñ Tuubaa jumaa ji la njëkk njëkk njëkk taxawal ci yoonu murit mu magee jumaa Tuubaa lu baree bari te sëñ Tuubaa julli na ci digle ñu di ci julli waaw muy jumaa njaareem ji te te maam Thierno Birahim ak ñu baree bari jaar nañ fi maam Thierno Birahim jiite na ci jumaa ji ginnaaw bi Serigne Serigne Mor Absolo it ak ki nga xamante nii mooy Cheikh Issa Dieng ñoo yoroon liggéey jumaa ji kon denañ ci ànd ak sëñ Sidi Fall mu woon ñu lépp loo xamante ni moo nekk moo moo mooy histoire jumaa ji incha allahu rabbi wa mbok yi ñi ngi and ak ki nga xamne moy mooy Sidi Fall di sotup sëriñ Mor Absolo nek ci jumaa ji te sëñ Mor Absolo bok ci ñi denkon liggey jumaa ji mook Cheikh Issa Diène waaw sëñ Sidi ñu bëggona am xam jumaa njaareem ji ban année lañ ko tabax. 1112 la sëñ bi ñëw bi se kay alterné wa liggey bi mi ngi ak bisub aljuma bisub aljuma bisub aljuma la jumaa ji noppi. ah jumaa ñàpp sëñ maam Thierno moo fi jëk a am cierno ibrahim ban année la jumaa ji noppi. ba bi nag ah waaw wax nga dëgg sëñ Touba mas naa julli ci jumaa ji. julli nag waaye jàkka ji fa la julli waxtu juróom. ah jee la daan jullee wax kon mbokk yi jàkka jee ngeen jàkkaar lool mooy jàkka ji sëñ Touba daan julle jullee wax waxtu juróom waxtu juróom yi fee la ko daan jullee. waaw waaye jumaa ji nee na sëñ Touba julli na ci digle ñu di ci julli. waaw liggéey waaw kon ñi danañ ci ànd ak yéen incha allah ci jotaay bu gën a yaatu. ñu ànd ceeg sëñ Sidi Fall mi nga xam ne mooy sëtub sëñ Mor Absolo mm. ak sëriñ Mamor Fall mi nga xam ne moo leen di defal reportage bi ci li nga xam ne mooy 2STV incha allahu rabbi ñu ànd ak yéen xool jumaa ji jiite ci jumaa ji sëñ Seydi moom fi a jiite ndax daal moom fi njëkk a jiite waaw gannaaw gi sëñ Afe Mbacke sëñ Afe Mbacke waaw gannaaw gi sëñ Madi ñoo yoroon liggéeyub jumaa ji sëñ Mor Aflo Lo ak sëñ Issa Diène ah ñoom ñoo yoroon liggéeyub jumaa ji sëñ Mor Aflo moo topp ci sëñ Monumbe waaw moo tax ci sëñ Monumbe sëñ Mor moo toppoon ci moom kon jumaa ji li muy symboliser ci yoonu murit bari sëñ Balla Fall Dieng moo yoroon xaalis bi sëñ Balla Fall xaalis bi waaw te xeer waaw sëñ Sidi dafa mel ne bu ñu ji amul li nga xam ne mooy xe mooy feer ay xeer la léppi xeer la jël ci carrière ba waaw mos kon tax ñu ngi dëkk ndar ndar farajaw moo doon meeta masoon farajaw waaw ku wax farajaw ah moo doon meeta masoon waaw waaw waaw ñooñu ndar lañ dëkk waaw bi ñu naan jox na xaalis benn bis nekk tey saa borom may ñu taw ak makka waaw dem la waaw ji wax ji allah ma ngi kër gu ñu àndoon ceeg sëñ Sidi Fall di sëtub sëriñ Mor solo waaw taxawee liggéey bi waa sëñ Chérif Fall dañuy dégg ku ñuy wax jawaab benn naar bu ñuy wax jawaab bu ñu daan wax ne da daan jiite ci jumaa ji tam nekkoon ku mokkal alxuraan kooku sëñ Touba moo ko santoon muy jiite ci jumaa ji wala sëñ Bachir moo ko ko sëñ Bachir Mbacke moo ko fi indi waaw muy muy naafile fii ah mu ne woon mm-hmm. waaw sëñ Bas Ja mu nekk taw fu yox ah sëñ Bas Ja taw fu yox wax nga dëgg waa mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek sëñ Sidi Fall la ñu àndal tey ak seen mbokk seen xarit Mamor Fall Brésil Casillas de suul ñu ànd ak deuxième TV Modou Modou yi TV ñëw ci jumaa ji nga xam ne li mu symbolisé bari na ndax sëñ Touba ku ne xam ne maa Mayombe ñeenti bant la taxawaloon ñu sempi ko sànni tubaab bi yabal ñu sempi ko sànni tey jumaa ji ñeenti sooroon la loolu di wane ne rek ab liggéeyam niilu commandé ko yéeli sëy moo xuloo moo xuloo tubaab bi nag jotul leen moom rek ki jamono la sëy waaw sëy bu mu ñëwee nag jaante jumaa ji noppi na mm. suñ woo suñu mën leen suñu mën leen dagana nekk àll moom ñu si jumaa ji waaw bu dugg ci biir kër gi sëñ bi ne ko xanaa yéen loolu jaaxal mu ne mu ne ko bant yéen ma sama tëgg mooy taxawaayu jumaa ji mooy taxawaayu jumaa ji loolu mu fayee jumaa ji mu daal di xaaj ci yuuxu sa kaw dëgg la musulmaan yooyu wax julli foofu ñëw nañ fi ne fii di julli euh, daal di muñ dëgg la sëñ bi muñ taxaw teg loxoom ci kaala ga dëgg la fàttali ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne ko da nga def ñaari jumaa mm-hmm. jumaa ji ko def ci àddina ñaari yéen njaaram la ne di ko ñaaral Tuubaa sëñ Saaliwu Mbàkke bi nekkee mu doon ñaan dal def ñeenti doom ndeysaan dëgg la waaw sëñ Sidi ndax mën nañoo xam kan mooy ilimaanu jumaa ji jamono ji ndax sëriñ moo sëriñ ma soxna loo moo fi nekkoon waaye léegi dafa jëm mag sëriñ Muntaxa wàcce woon na ko loolu yëgoon na ma soxna bi fi nekkee mhm. euh, yàlla te muy mag sëñ Daam Buso moo ne léegi maa ngi ma soxna ay mag lañ dal yëpp sa yëpp sa suñu ma daam Jóob waa mbokk yi fii ñu taxaw nii sëñ Tuubaa taxaw na fi julli fii la Serigne Touba Xaadim Rasul daan jullee bu masaan dugg ci jumaa ji. mooy fii ngeen tiim nii. waaw waaw. waaye waaye sëñ Sidi fii dafa mel ne am na benn yat bu fi nekkoon yatu xay. yat woo xam ne sëñ tubaa moo ko daan téye ana yat moo ko denc maa ngi ñii ubbi ko dana ko génn ñii moom ah. léegi dana ko génn bantub jalambaar bantub jalambaar la waaw fii la daan nekk fii la ko sëñ bi tegoon ci fii la ko di bañ gaay jël ko wax nga deug wa mi ñu bu ñëwee léegi ko waaw jalambaar la wa fi ñu taxaw ni fi la sëñ tubaa daan julli fi la daan tay tek jëm bu tedd ba mbàkke baal la la ko daan tek kon jaareem lepp ngi fi waaw waaye sëñ sidi dafa mel ne sëñ tubaa bagaasim daan yor mi ngi fii ci kër gu mat bagages yi man gis naa ko dafa mel ni ay satale yi mu daan yor ak kurus géeg yëpp daa mel ni gis na mi mi fi fii waaw kaa kaas bi nga xam ne daana ko naane am na benn kaas weer bu mu daan naane tamit kaas boobu dafa mel ni mas nañ cee naan man ak yow kaas boo xam ne sëñ Touba moo ci daan naan. Euh, waaw waaw kaas boobu dafa mel ni yow mas nga ma cee jox ndox ma naan. te kaas boobu sëñ Touba naan na ci. Ah, waaw muy lu kéemaane wax dëgg yàlla mu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. ñuy sant yàlla ci loolu bu baax kaas bu sëñ Touba naan moom buñ ci naanee dañ war a sant yàlla. wax nga dëgg. foofu leen suñu Modou Khari dal suñu Rasulullah sallallahu si ko mu xam ne sab na waaw bant ma joxoon la hmm. waaw jumaa ju yéeme la de ma fi ñëwul ak symboliser lu baree bari ci yoonu murid jumaa ji bi ñëw ak leer dafa mel ne jumaa Sëñ tubaab bi bi mu ñëwee 1912 Njaareem hmm. ca wetu kër gouverneur la dëkkoon ginnaaw bi la ñëw fii. fee ca wetu usine ba. waaw fa la ne woon mooy fi usine bu bees bi ne bu njëkk ba nekk. bu njëkk bi nekk ginnaaw bi la ñëw fii. waaye fii bi ñu ñëwee dañ dañ ne ay séeréer ñoo fi nekkoon. ñu di ko wax fii mooy mbay dee. mbay dee ko wax sëñ bi lañ ko wax sëñ bi ne ko tudd mu ne ko laman laa tudd wax laman laa tudd soo soo demee ko koppal xaalis mu loolu mooy wane rek sëñ Tuubaa xaalis ñoru ko kon waaw Ah. waaw laman wax nga dëgg kon fii fépp séréer see ko moomoon ah, ay tool la woon ay kii séréer si ne li tax lu raw bu suñ ko mu dóor bi moom may ne ko loo xam si mun si am soxla digal sa borom julli ak bindal buur suñ ko bëri fi day kàcce gaana sama man toog bu ubbee gaal fekk ay téere alquran gaal fekk suukar war nga kenu kenu bii dafa mel ne mooy kenu bi njëkk a teg xeer wi pose bi fii la sëñ tubaa tege woon xeeru jumaa ji ci bisub altene ndeysaan fii la sëriñ tubaa tege woon xeeru jumaa ji mbokk yi bis bisub altene sëñ bi moo ko tegoon ci loxoom bu tedd ba kon kenu bi mooy kenu bi njëkk taxaw ci jumaa ji sëñ ma taal bi loolu taxaw nii ak waaw sëñ Matar bintelo ak sëñ Mor Absolo sëñ bala Fall Dieng wa ak mam ak ki nga xamne moy mooy dam abdourahman Lo borom Jenne ak Lagana waaw waaw ak mam Thierno ibrahim damal daaru wa sëñ Sidi dañu bëggona xam tamit digënté mam Thierno ibrahim ak sëñ Mor Absolo ndax sëñ Touba dañu bari dañuy wax ne dafa won mam Thierno ibrahim ak sëñ Mor Absolo ak ki nga xamne moy mooy dam abdourahman Lo yéen ñet yéenay bokk ak ngan ci aljana lool nu mu demee seigne Sidi daf ko ñu bokk ngan ci aljana waaye li ko li ko jiitu ca ndaam suñu mën bool la jàngale rek sax moo du suñu mën bool moo du waxal li ci ne jànjëb si tuba boobu mu ne jànjëb rek du joor la ñu ko daan wax maam kenn wàcc léegi mën a wax teg si suñu mën waxoon ma fan suñu mën rafet ci ci léegi saa bàyyi ni ba ñu ko jëlee ndaam ñëw dal mu fekk si mënu soi mën ko yónni suñu mën afro waaye dañ ko bëgg ci maam Thierno bu leen tuba si mënu mi ndax mii liggéey ñu maa jël moo topp si mënu mi ndeysaan bañ ko ndee tuba si mënu soi ko jullee sëñ Abdourahmane nag ak sëñ Mor Afro ak maam Thierno da sëñ bi ne ñu yëngu nag ndaysan lolou ka wa seigne Sidi buñ bëggono xam walu cetal gi cet gi manam walu rahas karo yeeg li nga xam moy setal ji hmm. ban commission mo yor lolou walu setal gi kooku mun ñang mun ñang ñi ma jàppale jumaa ji ñu ah mo mo yoré walu cet gi mo jité commission bi wa ko seigne Issa Diène sëñ Abdou Diène mooy sëriñam ndeysaan waaw mbokk yi jumaa njaaree ma ngi ni di jumaa ju yéeme nag wax dëgg yalla di ñenti sorol, muy ñenti sorol yi mu sampoon rek ma yombé tuba bi ñew simple ko sanni yabal ay soldat ñu simple ko sanni juma ji di ñeenti sorol te tabax bi ku ko xol ni mu yeme ci jamono yoy nga xamne à l'époque nga xamne yag na boba danaka architecte yi am sa amul won juma ji amul dara lo xamne ne xeer la lepp dara lo xamne fer la lepp ay xeer la amul xar xat di juma ju rafet jua xamne ma sha allah Serigne Saliou Mbacke tabaxat juma ju melni ci Mbour bo demee Mbour juma ja fa nek ak juma ji ben la ngeen ci ak seen mbokk seen xarit mamour Fall. di nuyu bu baax Mortala Diouf référence suñu xarit waaw ñi ngi béggee ñëpp Abdoulaye Ndiaye Bili Casillas de Sul Brésil waaw jumaa jaa ngi ni mbokk mu jumaa ju yéeme yéeme wax dëgg yàlla gis ngeen plan bi ak ni nga xam ne noonu lañ ko liggéeyee jumaa ju yéeme macha allah rafet lool Serigne Cheikh Serigne Sali.